mbokk yi jaa ngeen jëf ci teelu beeg Leral TV ñetti waxtu jot na bisimila ci xibaaru diggu bëccëg bi. bokk na li gën a fës eh, ci xibaaru digg bëccëg bi mu dipp waxtaan eh, penco bu yaatu lu jëm ci wàllub assurance ak i tamit eh, doxalinu courtier yi tey lañ ko daal di ubbi mu war a wéy ba ëllëg ñaar fan ak fii ci ndakaaru ñaka amal mooy association sénégalaise bi yëngu ci wàllu wàllub assurance ak conseil di ASAC bokk na ci tamit lakk gu metti moo daal di tàbbee démb benn waxtu ci guddi foofu ca Petersen fii ci Dakar Plateau lu ci bëri ci ay kantine daal di lakk ba jeex euh, takk bokk na ci tamit coordonnateur euh, bu département alternative euh, relève citoyenne ARC bokk na ci tamit lu jëm ci wàllub xibaar lu ñu fase waxtaane ak li nga xamante rek moo soxal ci wàllub yéenekaay yi muy lu jëm ci wàllub yéenekaay yi ñoom daal ñii di waa CORED CORED daal dañ na ñuy dànkaafu ñi nga xam ni moom mooy taskatu xibaar yi gannaaw bi nga xamante nii rek ñi ngi amal ay xibaar yoo xam ni dañu koy yëkkati lu jëm ci wàllu euh, parrainage yooyu la la ñuy digle rek mooy ñu daal di def nànk ci lu ni mel rawatina lu jëm ci wàllu pa euh, lii di euh, soxal wàllu politique te ñu jëm ci woote njiitu réew bi ñuy dëgmal mbokk yi yeneen i xibaar xibaaru tàggat yaram li ci yéenekaay lañ koy ndar keppe ak El Hadj Abdoulaye Nar nees kiis ñu soobu ci yaatal gi mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen dalal jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi nañu ko junjee woon ñu daal di sóobu ci yaatal gi ak li soxal bésu pa waxtaan wala bokk ñaar ay bés yoo xam dañuy waxtaan lu jëm ci wàllub courtage association sénégalaise lu jëm ci wàllu assureur conseil di ASAC ñoom ñoo am lu ni mel tey lañ ko bi fii ci Ndakaaru mu war a wéy ba ëllëg boobile waxtaan bu njëkk tey jile ñu daal di ubbi waxtaanee nañu lu jëm ci wàllu wàllub assurance ak i tamit euh, métier courtage te li ni mel rek dañu bëgg ñi nga xam ni ñoom ñooy askan bi seen xel màcc lu jëm ci li nga xam ni moo soxal wàllub euh, lii di assurance. dañ ci teelu madame Racky wan moom mooy présidente association sénégalaise des assureurs ak conseil mi ngi àddu ci micro Ndeye faatu Diop ak Bassirou Faye woote woo euh, acteur wu société bi yëpp maanaam képp koo xam ne yaa ngi ci société bi ku nekk loo ku yor dara rek te bëggoon nga bës bu yàqoo wala boo ko ñàkkee ñu fay la rek war nga ko mën a assurer donc ñun ñëpp ay assuré la ñëpp am nañu oto wala am nañu dara wala kër wala daal lu ñu assuré ak santé da nga koy assuré donc woo ñëpp ñu ñëw pour waxtaan ak ñoom pour non seulement yee leen ci li fi xew yëpp te mu metti lool parce que bu fekkee ne yenn xew-xew yi am na te amoo assurance day metti pour nga mën ci génn pour nga mën koo fay wala nga mën koo amaat. waaw ah, boo amoon assurance nag assurance bi day daal di ñëw fay léegi nag tey ak suba yëpp dina am ay waxtaan ay experts yoo xam ne loolu mooy seen liggéey ak ñoo xam ne sax ci affaire prévention la ñuy yëngu daal bu ñu paree ci journée bi ñu mën a génne ay solution yoo xam ne Sénégal yeeg ñëpp dinañ ci mën a gis. ñi wax euh, li nga xamante ni moom mooy lakk gu metti bu daal di tàbbi démb ci guddi benn waxtu bi mu jotee euh, ca PCS Petersen fii ci Ndakaaru lu bëri ci ay cantine ya fa nekkoon dañ daal di lakk ba euh, jeex tàkk ba fi mu nekk nii xamaguñu ana lan moo sabab boobule lakk waaye ci li nga xam rek moo jëm ci lakk googu ñuy gis ak saxaar seeg tàkk-tàkk bi. mu nekkoon loo xamante ni euh, lu jéggi dayoo waaye rek ubbi nañ ci ab enquête bu yaatu ngir daal di xam lan moo sabab boobile euh, njombe leneen ci ay xibaar euh, coordonnateur bu département alternative pour la relève citoyenne di ARC nekk foofu la ca Tivaouane jagaan euh, na jiite moom daal nay becci mboolem ay jafe-jafe yoo xamante ni ñoo nekk foofu la ca askan ba rawatina lu jëm ci wàllu ndóol gi nga xamante ni laal na ñu bëri ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee foofu la ca diwaan ga donte gis nañu usines yoo xamante ni dañ ko fa samp waaye lu ni mel taxul ba askan bi daal di ci gis seen bopp ndaxte ndool gi mi ngi gën di euh, law waaye tamit euh, li gën a indi ay jafe-jafe askan bi foofu la ca ngaay mexe lu jëm ci ñi nga xam ñoom ñooy uude ya fa nekk di defar ay daal di ko jaay euh, li gàllankoor seen i pël liggéey mooy euh, li nga xam ni moom mooy marchandise chinois yoo xamante ni dafay euh, lompoñal seen i yëngu-yëngu te lu ni mel mi ngi leen di indi ay gàllankoor yu jéggi dayoo yooyu le euh, kàddu euh, moom mi li nga xamante moom mooy jagaan euh, jiite bekki na ko gannaaw bi mu doon amal waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy candidat wotem njiitu réew bi ñuy dëgnal Anta Babacar Ngom ñu teelu moom mi le jagaan jiite ci yooyu la jafe-jafe nga xam ni askan ba ñu ngi koy jànkoonteel ci micro biram xari ndaw département de Tivaouane moom jafe bi li ci ëpp mooy da dafa nekk une zone minière zone la boo xam ni dafa am ay industrie yoo xam ni non seulement comme ni ñu koy waxee sànq dañoo nekk zone boo xam ni man ni y a des mines qui valent de l'or ba pare nag pauvreté bi gën a métti nekk ci biir région bi muy contradiction boo xam ne ñun bokk na ci la nga xam ni dañ koo bëgg a ñafe ndax bay ca say tànk ku nekk xam nga ni aussi la ville de Ngaye mooy le milieu du cuir artisanat foofu la dëppee mais ba tey ji may wax ak yow tey la cordonnier Ngaye yi gën a son non seulement ñoom dañoo xam ñaq ak a jariñoo mais CUR ba dañu amul ku leen encadré encadrement moo des politique artisanale bu Sénégal ni mbay mi lajjee pêche bi lajjee ba tax xale yi di dem bitim réew artisanat bu ngaay moo ko raw la solution maintenant c'est Anta Ba xeex euh, li jëm ci wàllu wàllub euh, mbali gi ak i tamit euh, yenn jafe yi nga xamante ni rek dañ koy jànkonteel moom agence française de développement daal nay jàppale commune bu Nguéniène ngir rek ñu daal di mën a an mbalit yi ak yenn yoo xamante rek dafay tilimal foofile di commune ba moo tax it eh, jox nañ leen ay jumtukaay yu mucc ay ayib ngir ñu daal di mën a eh, jàkkaarloog li nga xam moom mooy yenn ci ay salte bokk na ci tam di an mbalit gi ba askan bi mën a am ab péex ci wàll googu ci ni mu gën a yaatoo moom eh, meeru Nguéniène Alpha Samb ci micro Omar Ndiaye Babacar cal foofu ca Mbour. jii nii suñ taxawee tey parce que dañu fekk ne ñu liggéey ak benn commune bu nekk France bu ñu ay benn ville ñoom ñu ak ñoom ñoo ñoo ànd liggéey jaarale ko ci GESCOT ñoom jaarale ko ci GESCOT. ak ñi nga xam ne ñooy euh, Aqua assistance ñu jàppale ñu ba monter projet bi def étude ba am financement donc si nañu am financement bi donc pour que defar décharge boo xam ne au moins na tax ngeen na fanweeri at yoo xam ne mën na dafa mbalit mbalit du am problème. décharge fi mu nekk nii lundi nañ commencé collecté ci mbalit yóbbu foofu di ko di ko di ko sonni foofu. soo ko mënee indi sa mbalit il nga jox ko fu mu koy def moo tax ñu def poubelle kër gu ne incha allah. ménage bu nekk di nga am poubelle boo xam ne dañ lay jox ñëw jël si mbalit chaque jour pendant un mois su weer wi dee nga joxe lu dul 1000 francs ooy ke employé moom moom xam nga mbalit moom li ci am solo ñun dañuy ñu gën am solo maanaam mooy euh, que mbalit dootul am ngéñeen moo ñëppa solo que ngéñeen nekk dëkk bu set maintenant nag ci suuf foofu foofu loolu ñu koy ay ñi fay liggéey par charrette yi gis ngeen mbaam yaa ngi ni euh, charrette yaa ngi nii ak yooyu ñi fay liggéey ak gérant bi nee nag fukki nit ak juróom la ñuy liggéey bu weesoo an mbalit gi foofile ca Ngeeñeen dañ daal di wàcc ba dem foofu foofile ca pal Saly Portudal nekk foofu ca diwaanu Mbuur ndax agence de régulation des marchés amal na fa ab benn lël goo xamante ni dañuy waxtaane lu jëm ci wàllu campagne commercialisation lu jëm ci wàll produit horticole foofu ca Saly euh, Portudal gannaaw moom euh, directeur général bi moom daal dinay wax ci euh, ndaje googu daal la ñu sabab rek mooy daal di péncoo ci jëm ci campagne atum 2024 bi ñu dëgmal waaye tamit xool euh, ci jamono ji euh, li nga xamante rek moo jëm ci wàllu pa euh, lii di mbay pa horticole boobile ana lan moo ci jagadi ngir ñu daal di koy jubbanti laata atum 2024 bi ñuy dëgmal dañ ciy teelu ci nu mu gën a yaatoo moom Ansoumana Sané moom mooy directeur directeur général agence de régulation des marché mi ngi wax ci micro Omar Ndiaye Babacar Thial. li ko waral mooy at bu sot at bu jot. ñi euh, nga xamante ne nii mooy euh, les acteurs yi nekk ci wàllu régulation et du marché dañuy daje pour xayma li nga xamante ne nii euh, mooy campagne bi weesu pour ñu mën a aborder campagne bii di ñëw ñu jugee ci campagne 2022 2023 ñu noté ci li nga xamante ne nii moom mooy ay yëngu-yëngu yi nga xamante ne dafa ñëw jouer ci prix bi prix bi yokk ba am na ay jamono sax pratiquement dafa nekkoon un débat national loolu nag bu amee Euh, dafa am li nga xamante ne ni moom mooy li am ci euh, stratégie bi ARM di di di di mettre en œuvre day toog ak acteurs yëpp waxtaan ak ñoom pour ñu xool nan la ñuy def pour que li nga xamante ne ni baax na ci campagne bi ñu daal koy euh, gën a renforcer li nga xamante ne ni nag am na ci nag comme ay rëkk-rëkk ñu mën a xool pour campagne bi di ñëw ñu mën koo éviter. atelier bi dinañ ci toog ci ñetti fan. waxtaane li nga xamante ne ni moom mooy campagne bi weesu ñu waxtaane li nga xamante ne ni moom mooy campagne bi ñu ñëw dégager benn feuille bi nga xamante ne ni ñu ci toogee tënku ci nag euh, acteurs yëpp dinañ gis ni ki li nga xamante ne nii moom mooy dysfonctionnement bi ñu noté woon année bi weesu xëy na dina am lu bari loo xamante ne dinañ ko saafara ci deux 2023 2024 mbootaay bii daal dinay juddu ñu ngi ko euh, tuddee rafetal muy mbootaay goo xamante ni kaka samp moom mooy Assane euh, Sow euh, rek li nga xam moom mooy mbébétam di daal di fësal ay jéego yu am solo yoo xam ni moom président de la république Macky Sall amal na ko gannaaw bi mu nekkee ci xilaafa gi fukki at ñaar ba ñu ko doon samp boobile mbootaay di rafetal ci teewaayu ministre Pape Amadou Ndiaye ak itamit ay militant bokk na ci tamit ay soppe yi nga xam ne ñoom ñoo faree ci coalition Benno Bokk Yaakaar moom moom Assane Sow la muy sàkku rek mooy ñëpp daal di booloo nekk benn ñi fare ci coalition Benno Bokk Yaakaar jàppale seen mbër atum 2024 Amadou Ba mu daal di falu nekk njiitu réew mi dañu koy teelu moom ile Amadou Sow bi daal di samp boobule mbootaay di rafetal ci micro Maniru Mbay dafa juddu dugg zone nord rafetal Thiès est rafetal ouest rafetal rafetal nord rafetal le département de Thiès rafetal la région de Thiès pour victoire bu rafet bu leer dès le premier tour pour notre candidat Amadou Ba. le président Macky Sall dafa liggéey Sénégal liggéey boo xamante ni en 12 ans amul benn président boo xamante ni liggéey na ko ci li ñu jot a passé ku xool Sénégal y a de sela nga xool Sénégal tey nga jël les secteurs benn par benn benn par benn. di nga wane li Macky Sall def seen largement supérieur ak li nga xamante ni ses prédécesseurs def nañ ko. wax ngeen ko sànq da ngeen mës a rafetal ak Benno Bokk Yaakaar parce que Macky Sall avant muy falu musu ñoo perte nos centres de vote ba mu faloo bay joxe leng yi Amadou Ba musu ñoo perte suñu centre de vote kon pour élire le candidat Amadou Ba du ñu perte suñu centre de vote incha allah. ñu wax li jëm ci wàllub yéenikaay yi ak li nga xam ne moo soxal ci wàllu campagne parrainage xaatim yi nga xamante ni euh, mbër yi war a bokk ci jogante atum euh, jogante jiitu réew atum 2024 euh, ñoom waa CORED de di bànqaas bi nga xamante ni moom mooy saytu doxalinu taskatu xibaar yi ngir mu daal di tegu ci yoon ña ngay dànkaafu wala bokk di ñaax ñii di taskatu xibaar yi gannaaw bi nga xamante ni gis nañ ne yenn këru yéenikaay yi dañuy fësal ay xibaar lu soxal wàllub li nga xam moom mooy lim yi candidat yi di am lu jëm ci wàllu pare parrainage te lu ni mel euh, jar na ñu daal di koy gëstu bu baax a baax a baax ba mën a joxe xibaar bu daal di dëggu euh, te it ñuy ñaax yéenekaay yi rek rawatina taskatu xibaar yooyu le ñu bàyyi si xel bu baax a baax ndax ngir rek ñu bañ leen a juumloo te it bañ leen ndax nax euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy lii muyu candidat yi di am ci yooyu le xaati bu di parrainage kon li ni mel rek gannaaw campagne bi nga xam ni war nañ ci jublu ak itamit wote njiitu réew yi jamono ji rek lu ci bëri ci ay naxee mbaay mën na ci am moo tax ba waa correct di bànqaas bi nga xam ñoom ñooy saytu doxalinu ñii di taskatu xibaar yi ngir lépp rek daal di tegu ci yoon ñu daal di xel bàyyi xel ci wàllu googu bu baax a baax ngir ñu bañ leen a juumloo ñu jëm ci li nga xam ne moo soxal wàllu xibaar ba tey dañu daal di wax moom il est président bu convention wala bokk mbootaay bi ëmb euh, ndaw euh, taskatu xibaar yi euh, moom Maggy Miggy Maram Ndiaye daal di nay fësal tey ci talaata bi lu jëm ci wàllub appel ñi nga xam ni moom mooy wala bokk woote pa ñi yëngu ci wàllu wàllub politique ak i tamit takk der yi ñu daal di gën a bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy kaaraange taskatu xibaar yi nga xamante nii dañuy nekk ci terrain bi euh, di wut ay xibaar wala bokk di ànd ak politiciens yi lu jëm ci euh, campagne bi wala bokk euh, période bi nga xamante ni dafa yemoo ko ñuy waajal woteb njiitu réew yi fii ci biir réew mi. kon moom mi la nga xam ni moom mooy président convention des jeunes reporters bu Sénégal kon sàkkuteef boobu la daal di def. bokk na ci tamit lu jëm ci wàllub euh, xiiro ngaayo wala bokk euh, ñàkk déggoo ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar gannaaw tànnifu euh, seen njiit wala bokk président Macky Sall mu daal di tànn kii di Amadou Ba nekk mbërub candidat coalition Benno Bokk Yaakaar woote njiitu réew atum 2024 kon fi mu nekk nii moom mouvement renaissance sociale pour l'émergence du RSE bokk tamit euh, ci euh, panel boo xamante rek dañ ko doon euh, samp amal na benn waxtaan mu di panel boo xamante ni dafa jëm ci wàllu xëy mi ak i tamit lu jëm ci wàllu koom foofu ca diwaanu a Thiès waaye tamit àddu ñu ci li nga xamante ni ñoom ñooy jokkoor bi li nga xam ni rek moom mooy tànneefu président Macky Sall di ci kii Amadou Ba. nekk candidat coalition Benno Bokk Yaakaar woote mi jiitu atum 2024 bi ñuy dëgmal euh, ci nu mu gën a yaatoo euh, moom Salem Cissé nekk président renaissance sociale pour l'émergence ñu teelu ko kook euh, Maniru Mbengue Macky sal beneen nit la tànn mooy le président Amadou Ba ñu nekk ci moom nekk ginnaawam jàppale ko ngir ñu mën na gagné dès le premier tour. ndaxte bu ñu deful lool euh, ballottage na am ñu dem peut-être second tour li ñuy li ñuy arrangé mooy ñu dem dès le premier tour ñëpp nekk ginnaaw Amadou Ba parce que le meilleur candidat APR ñi nekk doon benn. Euh, li si li si gën a ñaawlu mooy attaques yi si biir lay jógee te loolu dañ ko war a attaqué xiidoog ñaay bëri na donc dañoo war a attaque arrêté attaques yi ñuy wàcc sur le terrain benn bokk yaakaar ñëpp doon benn suñu objectif principal mooy aider à faire élire le président Amadou Ba dès le premier tour loolu suñu objectif à court terme suñu objectif à long terme mooy ñi nekk benn bloc benn réseau boo xamante ne dinañ mën a jàppalante dootul amati différence entre nappkat beeg entre étudiant bi ñëpp ñëppay doon benn ñuy joxante ay opportunité voilà ñu nekk benn réseau boo xamante ne ñëpp dinañ suudewu di jàppalante dëkk bi naat loolu tax ñuy choisir le président Amadou Ba comme nit koo xamante ne bokk nañ vision dinañu mën a jàppale ñu wax euh, ci caisse euh, de dépôts ak consignation génne nañu benn bataaxal boo xamante ni euh, dañuy joxe ay xibaar ci ñu jëm ci wàllub candidat woote bi ñu turee atum 2024 ne rek seen guichet yi maanaam daal fi nga xamante ni fa lay candidat yi di fayee ñu ko ubbi juróom-ñetti waxtu bu jotee ci suba jàpp ñeenti waxtu bu tegalee fanweeri simili waaye itam dineen amal pose maanaam daal benn noppalu ko benn waxtu bu tegalee fanweeri simili jàpp ñaari waxtu bu tegalee fanweeri simili kon seen guichet yooyu dana daal di euh, dox euh, te euh, dara rek du ci dakk diggante juróom-ñetti waxtu ba juróom-ñaari waxtu ci ngoon ba mu des samedi beeg dimanche bi duñu ko liggéey fii ba rek ñu daal di buur li jëm ci wàllub dépôt de candidature yi ngir rek daal di mën a joxe ay xibaar bu baax a baax tey tamit lu jëm ci wàllu boobu ñu war leen a jox ñoom attestation yi ñoom caisse de dépôts et consignations ñu ngi sàkku ci candidat woote njiitu réew yi atum 2024 ñu daal def seen seen kéem kattan daal di mën a euh, euh, yóbbu euh, li nga xam ne war nañ ko fay ñaari fan laata rek ñuy daal di buur li di dépôt des candidatures ñoom caisse de caisse de dépôts et consignation ñu ngi yëgle ne képp koo xam ni moo war a ñëw di fay war na yor lettre boo xamante ni kii di candidat bi moo koy jébale te tamit mu def ci ab xaatimam kon mi ngi noonu euh, di euh, li nga xam daal moom mooy bataaxalub euh, caisse des dépôts et consignations foofu la ñuy daal di buur lii di pàcc gu njëkk ci xibaaru digg bëccëg gi ñaareelu pàcc gi la ñuy daal di song ba ca njëkk muy dipp xibaaru tàggat yaram yi. xibaaru tàggat yaram dañuy daal di tàmbalee ak foofile ca pencu ndawi réew mi moom i ki gàlloo euh, wàllub tàggat yaram fii ci biir réew mi euh, di euh, Lat Diop demb ca assemblée nationale doon nañu natt li nga xam ne moom mooy gafaab kon yokku na lu toll si fukk ak ñeenti milliards ci suñu ay koppar moom i jawriñ bi di Lat Diop gannaaw rek biñ ko nattalee mu yor wàllub tàggat yaram àdduna ci li nga xam ne moo jëm ci wàllub yokkute boobu ak it liggéey bi nga xamante ni sumb ko ngir tàggat yaram moom jëwriñ bi Lat Diop dañu koy teelu euh, ci euh, micro euh, ki nga xam ne moom moo fa teewoon di suñu ndaw Aminata Traoré. côté bi comme ni ma ko waxee dafa am ay ay ay liggéey yu bëri yoo xam ne dañ ko sumb notamment ré ré réfection stade stade yu mel ni ay Ely Manel Fall stade yu mel ni Léopold Sédar Senghor Iba Mar Diop yooyu yëpp nga xam ne day am ay contrepartie yoo xam ne parfois même bu ci bailleurs yi dugalee seen loxo état bi da ngay am loo xam ne da koy war donc loolu moo gën a indi. yokkute gi loolu aussi vraiment ñu ngi ciy remercier député yëpp ci seen taxawaay ak seen compréhension aussi ci ci ci li nga xamante ni euh, mooy sport bi nga xamante ni dafa dafa nekk loo xam ne lu am sensibilité la fii ci Sénégal Sénégal ñëpp ay sportif lañ dañuy faral di wax ni ñëpp ay entraîneur lañ ci lépp donc loolu dafay wane ne rek ni sénégalais dañuy suivre sport lu ñu gëm la lu ñu bëgg la mais lu ñu lu ñuy contrôler la donc te séance bi tey wane na ko. waaw euh, déjà président de la république Macky Sall joxe na ay instructions. pour que ñu jël suñuy matuwaay yi wóor pour mën a dimbali équipe bi jàppale ko ci moyens yu wóor yoo xamante ne bu ñu demee daf ñuy wóor ni dañuy gagné coupe bi te loolu ñu ngi ko ciy remercier di ñaan sénégalais yi fu mu mën a fu waaye mën a nekk na ñaan téye kursam ngir ñu dem jëli ndam li mànkoowaat indiwaat ndam li au bonheur de de tous les sénégalais. donc euh, ñu ngi liggéey ci wàllu mm, aspect financier yi ak aspect matériel yi yooyu yëpp bu yembee incha allah dinañ ko def en temps voulu et dans pour pour vraiment ñu permettre équipe bi moom mi ne ilimaanu bi nga xamante ni moo yor wàllu tàggat yaram ministre Lat Diop mi ngi doon àddu ci micro Aminata Traoré ak Cheikh Tidiane seen ñu daal di wax ci leneen luy soxal wàllu xibaaru tàggat yaram ba tey di CAF Award 2023 ñi nga xam dañ leen di tabb ñu gën a xarañ ci wàllu euh, football ci jigéen ñi la euh, kon Sénégal euh, ñoom dem nañu ci wàllu final seen catégorie ci wàllu équipe bi nga xam moo gën a ràññeeku ci atum 2023 kon équipe nationale googu ñu ngi ci final bi kon CAF bi dina. fësal ñi nga xamante rek ñoom ñoo euh, gën a euh, ràññeeku ci atum 2023 ci juróom-ñaaru euh, tabb yoo xamante ne rek war nañ ko tabb kon Sénégal euh, ci équipe nationale bi dem nañ ci wàllu euh, finale kon kii di seen entraîneur moom maam Moussa Cissé ak joueurs yi di Ndeye Awa jaxate ak ab Satou Maladi Diallo ñoom ñi nga xam dañ leen nommé nominé wala bokk tabb leen ci catégorie yi nga xamante ni meilleur entraîneur ak maire joueuse ak i tamit meilleure jeune joueuse ñoom bokkuñu ci finalu atum 2023 bi waaye tamit équipe nationale bu Sénégal équipe boobile dana jongante ak yenn équipe bokk na ci Afrique du Sud nekk champion d'Afrique Maroc Nigéria ak Zambie kon cérémonie boobu nga xam ni ñu war nañu joxe euh, raay yi jàpp nañ ko altine yeem ak fukki fan ak benn ci weeru décembre bi ñu euh, nekk euh, foofile ca Marrakech réew pa Maroc ñu daal di wax Ligue des champions asiatique maanaam football euh, ci euh, dëkku naar yi Al bu Sadio Mané dafa def euh, match nul kenn dugul dara kon démb moom Sadio Mané ak clubam di Al Nassr nekkaan nañu ci bopp raw gàddu gi Ligue des champions asiatique ci juróomeelu bëccëg bi ñu doon jongante Al Nassr nekk ci place bu njëkk bi donte sax dafa def match nul kenn dugul dara seen diggante ak Perse Persepolis moom Sadio Mané nekkoon na titulaire ci boobule match moom ak euh, Cristiano Ronaldo euh, Cristiano Ronaldo doo sax amoon na penalty waaye kii di arbitre bi dafa daal di euh, bañ. ñu wax ne rek ñoom Al Nassr danañu football ak beneen club bu nekk foofu la Tadjikistan di club bi nga xamante ni moom mooy Krosposer Istiklol Dushanbe ci fan yi ñuy dëgmal. Euh, ci wàllu coupe du monde ñu weesuwul fukki at ak juróom-ñaar ñoom waa France dañu daal di gagné waa Mali ñaari bal ci euh, benn euh, kon danañu jongante final bi ñoom ñi lay waa France seen diggante ak Allemagne lay doon samedi yem ak ñaari fan ci weeru décembre bi ñuy dëgmal. Ligue de euh, champion tey jile euh, programme bi euh, am na ay jongante yu am solo Paris Saint-Germain ak lance di am match yu rëy tey jile Paris Saint-Germain di dalal Newcastle lance moom dafay dem fekk ji ñii di waa Arsenal muy ñaari match yu am solo ñu tuddee ko wàllu final ngir rek seen qualification ci wàllu huitième de finale yi Paris Saint-Germain boo moytul ñoom dinañ am ay jafe-jafe ndaxte ay joueurs yu bëri du ñu bokk ci boobile match bokk na ci tamit kii di Marquinhos Euh, seen défenseur ak yeneen ci ay joueurs yoo xam ne ñu bokk ci match bi di Keylor Navas ak Kipembe bokk na ci Nuno Mendes ak Warren Zaïre Emery ñoom it duñu bokk ci boobule match Dortmund moom dina qualifié ci wàll huitième de finale yooyu bu gañee ñii di waa Milan AC waaye itam Milan AC moom itamit euh, danañu danañu toog bu fekkee Dortmund Euh, moom mi nga xamante rek dafay daje Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain euh, bu ko euh, bu gagné ñii di waa Newcastle ñoom waa Milan AC dañuy daal di qualifié Newcastle tamit dañu koy éliminer bu fekkee rek dafa lajj seen diggante ak ñii di waa Paris Saint-Germain. Milan AC di dajeek ak Dortmund kon match yi tey incha allah rabi ci nu mu gën a yaatoo dañ ci dikkaat mbokk mi ngi noonu mu nekkoon la gënoon a ci xibaaru tàggat yaram ñu leen doon jottali. pàcc gu mujj gi la ñuy daal di tàbbee li gën a fës ci yéenekaay tey ñu ànd ci ak El Hadj Abdoulaye Nar mbokk salaamaaleykum Bougane Gueye Dany moo ni woon président Macky foo teg sa tànk ba teg gi ma teg loo teg ma teg loo digge ma weddi li yéenekaay bi jëla soloy tegoon turbine teggi na ko la mu digge woon weddi na jiral xër bu njëkk turbine yéenekaay bi jëla soloy la mu xam le woon niki démb moo di candidat bi Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba am na lu ëpp ñetti million juróom-ñaar téeméeri ci ay parrain turbine ni ko déet la soloy wax di fëgg dënam naan am naa ko ci ay parrain baa xam ngeen ni ko am ba am lu ëpp ñetti million ci ay parrain mën naa mujj doon saafara jur jàngoro ci yow du samay kàddu source a moo ko xamle ubbil yéen a kaay bennoo nee na am naa lu ëpp ñetti million ci ay parrain Pastef dikk ni ko danduma ndax man ci bisu néew laa am lu ëpp million nag nooy tam sama bët fa ma ko teg jéggi na ñetti million ndax lii ñuy dégg ci ay million xaalis la wala ay doomi waaye naka noonu ñoom ñii seen yi mën na leen a mujj sànq ndax nday sart réew tënk nëb lim te lim boobu li bépp candidat boo xam ne jéggi nga ko ba am noo ko jéggee mën naa dis ganna ci sa ndodd ki ndoddam nar a gën a dis ganna mi ngi ci yéenekaay bi Moustapha Diop lay wuyoo Moustapha Diop mooy ki nga xam ne moo doon taxaw ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci parti bi di Pastef dañu teg leen loxo ñu nekk ci kaso moom mi nag mi ngi woon ci kaso bi waaye teg loxo ci élection présidentielle 2024 ñu ngir ñu amal ko ci anam mucc ayib te jaar yoon moo ñu teewal askan wi ca pencum ndawi réew mi te bokk ci kuréel gi ñuy wax yeewi askan wi démb ci altine ji ci seen diggante ak jëru ñuy lépp lu jëm ci biir réew mi Sidiki Kaba tàngoon na jitt ca pencum ndawi réew mi vox populi moo ko xamle ba di ñu xamal ni waa ku jégi daal démb may ñu dara kilifa ak gi di Sidiki Kaba ñi taxawoon ci ay xefam bokk a bi mu di ñu nekk ci ku jégi la ñu xamle moo di seen xel dalul benn yoon la lépp di jaar Sidiki Kaba moo ko xamle ba tey leneen la mu xamle moo di élection yu ñu mës a def ci réewum Sénégal yii dina bokk yi ci gën a jub ba noppi gën ci leer la ko waral moo di kenn ka koy gañe mooy ki ëppale ab limtali ëpp ci réewum Sénégal jox ko bopp ginnaaw bu ñu wàññee xobi ba noppi kooku rek nag moo mën a jël raw gàddu waaye benn njuuj njaaj ju am ba xelu askan wi mën cee tey naka nooy tam la mu bëgg moom Sidiki Kaba moo di xelu askan wi yëpp dal ci élection présidentielle 2024 yi ñu dëgmal dëgmal leen antenne quotidien yéen kaay bi ñu xamal ni démb daal ca dëgg-dëgg tàngoon na jiitu ci diggante waa ku jigi ak jëwni juy dénk biir réew mi ba takk jar jot caa amaw yoon yoon wa takk dere jaar mooy yoon wa gën yéenekaay bi nee na takk der yi ginnaaw ba nu dikkee ak dal ak mat gu mat sëkk la ñu àndal waaye leneen lu mayoon loolee jëye dëgg mënoon na faa am wal fa quotidien naan li am ba des daal moo di waa kujje gi nanguun benn yoon ngir kii di Sidiki di taxawal ay élection ci réew mi la ko waral moo di dafa far ba noppi am parti bu bokk di APR kon dina jafe xel mën a dal ci moom moom attekat bi di Aïssatou Diallo ba fa mu tegoon tànkam ba tey tegg ko a xaatim dogal ne mu la Cour suprême jël ngir teggi la attekat bi di saa ba sa bi Cour suprême doon amal ñeel dogal bi attekat bi di mu ni delloowaat ko ci liste électorale yi ginnaaw ba nu ko saytuwaatee ba noppi neenal ko dàq atteb saaba si fay dogal boobu cour suprême jël ñeent ci attekat ya fa nekkoon ànd nante ba daal di koy xaatim waaye ki nga xam si ni moo di Aïssata Diallo ba àndu ci ca noonu la génn ba nii xaatimul dogal boobu li ana lan moo tax Aïssata Diallo ba jël dogal bii lépp a ngi ci biir yéenekaay ba tey yéenekaay bi di laat naan lii baadu ci biir réew mi jamono ji kilifa yu bari ci déndu Afrique ñi ngi fi ngir waxtaane jàmm ak kaaraange ci Afrique yu bari xëy nañ ci bokk na ci laas enquête su du quotidien le quotidien bés bi tey la ñaareelu bés ci waxtaan woowu le lenn ci kàddu yi fa président Macky Sall yëkkati mi ngi ci le quotidien ngir suqali déndu Afrique président Macky Sall njiitum réew mi gis-gis ba mu ca amee moo di jot na sëkk ñuy faral di amal waxtaan ci sunu biir naka nooy tam di ko saxal ba tey itam ñeneen ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi nañuy fexe bay jiite réew mi ci dëgg ak yoon naka nooy tam lépp lu koy jëmale ci kanam ñu taxaw temm ci def ko lu jëm ci tàggat am amee fukki at ak juróom benn ba tey bokk na ci kàddu yu Nicolas Jackson mu di mësuma dem ci benn école football ci mbedd mi laa mas na nekk di football ci mbedd mi sax la ma gisee wóolu ma doyloo ma ba recruté ma tey ci talaata ji jongante yu nar a neex nar naa am ci Ligue des champions bi stade moo ñu ko xamal bokk na ci ñu war a laale Paris Saint-Germain Newcastle Milan Dortmund ba tey yéenekaay bi di ñu xamal ni Paris Saint-Germain tey ji juum waru ko ci digganteem ak Newcastle naka nooy itam Milan moom fokk rek dafa a dóor ngir mu mën a jàll ca de finale yi Tribune Sport di ñu xamal ni tàggat yaram ci réewum Sénégal koppar ba atum 2024 Lat Diop mën ko dénk yokk na ci toll ci fukki milliards ak ñeent sunu làmb di ñu xamal ne làmb ji dox ci diggante Boy Niang ak Modou Lo Boy Niang saa bu ñàkkee làmb ji loolee mooy tax Modou am juróom benn victoire biir Pikine mbokk yi yàlla ñëpp am jàmm jërëjëf jaajëf El Hadj Abdoulaye Dar moo ñu euh, yëral di gënoon fës ci yeneen kaay tey ñu koy jaajëfal bu baax baax waa régie euh, techniciens yi nga xam ni ñoo tax xibaar yi yem ñu leen jaajëfal El Hadj Makhtar ak ABC euh, soxna ci àlal lu moo togg xibaar yi lu jëm ci wàllu euh, réalisation waaye tamit yéen ñi doon teelu jaa jëf mucc ak mucc leen ñu yendu ak jàmm